Ah. Euh, ci tànn bi nga xam ne tànn ngeen ko béréb bi mm-hmm. euh, pour bugg fee indi ndogu mu nekk béréb boo xam ne bii dangeen ko tànn ci béréb yi nga xamee da ngeen da fay dundale ci yoonu yàlla di dundale te yàlla tax ah, rawatina ci weeru koor wi rawatina fukki fan yu mujj yi nga xam ne mooy fukki fan yi yàlla di goreel ay jaamam muy fukki fan yu am solo ah, te kom ni nga ko waxee nga ne benn góor yàlla mooy dundale ci yoonu yàlla te bëggut kenn xam turam waaye kooku yàlla moo ko gën a baax ndax yàlla ngi wax ci alxuraan ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi mm-hmm. ndax du ngeen jiitalal seen boppa dara ci yiw yàlla dencal leen ko su ëllëgee bu soobee yàlla ngeen fekk ko ci yàlla mm-hmm. te weerukoor koor wi wax nañ ne képp ku ci dundal ci jox nit lum dogee ah, moo xam muy xaritu tàndarma moo xam muy guuxu soow wala moo xam mu nekk guuxi ndox yàlla dana la nandal ci dégg kawsara ba te ku ci naan dootoo marati ah, kon ñu ngi leen di wax bismillah di leen wax ngeen dal ak jàmm te itam di am óolute ne seen jëf ji yàlla dana ko nangu Euh, ci biir loolu ba tey ñuy ñuy continuer di profito di sant yàlla di gërëm kilifa GRTS bi di Lamine Alaaji Lamine Manga ci ñun la bokk suñ mbokk la ah ba pare tam ci gox bi la nekk fii di ko ñaanal yàlla yàlla na ko jikk yàlla yokk maqaamaam mhm. defal ko jàmm fu mun a nekk defal ko yaayam mhm. suñ suñ sista di aji ndaama caam mhm. moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm di rafet lu taxawaayam ah, liñ naan tam ku yàlla jege danga koy laal ba tey rek ñu ngi profité di nuyu suñu président ah, ñu ne ku santu waaw ku santu nit ki doo sant yàlla wax dëgg te ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax lii yëpp ci taxawaayam bu rafet la mm-hmm. lii yëpp moom la neex mm-hmm. ñu ngi ñu ngi leen di wax bismillah mm-hmm. maak suma ay naataangoo ñoo fi nekk ñun ñi naka jekk ñun ñoo seq jumaa ji solo dégg ngeen li nga xam ne moom la imaam Touré wax uh-huh. waaye foo gis imaam bi tamit di nga xam ne am na jigéen ku fi nekk ku mooy ñun ñooy bokk waañ bi uh-huh. ah, mu nekk suñ mag moom itam nekk xalifa bu jigéen bi yaa booy ñu di la nuyu ah, te wax leen tey GRTS tey dañ leen ñëw indil si ndogu waaw kay si sanga yow noo sant Jeng Saala fay naa la bu baax waa GRTS uh-huh. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal yàlla ah lii teraanga ji ñu indi ci kër gi gis nañ ko gis bu rafet ñu ngi ciy kontaan ak délégation bi yi ñu àndat ñu fekk fi délégation ni ñoom ñu ngi sant Lamine Manga doom la ci kër gi yaayam jarbaal la ci kër gi ñu ngi sant président ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla fépp bu mu bëgg xàgg yal na ko fa yàlla xàggale barke yonent bi barke salaatul fatiha barke alquran ne ko jumaa ji ak waa jumaa ji ñu ngi ci gannaawam mooy njiiti jumaa ji ne ko sama baay moom la fi teg muy njiiti jumaa ji na xam ne jumaa ji moo ko jiite <laughs> loolu mu nekkalu am solo waaye xam naa ne waxtaan bi moom dinañ ko gën a yaatal ndegem tey moom dañ indi fii nii ndogu waaye dañoo waxtaan ki nga xam ne ni mooy Tunkara moom itam mu nekk ci comité bi fii nii si jumaa ji ñu nuyu ko rek mu wax ci wax gu gàtta rek balaa ñoo jublu nag ci waañ bi waaw mm-hmm. asalaamaaleykum wa mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen wax ne dëgg nañ ci lii lii ci buntab dimbalante ci yàlla la rek ndax alxuraan dafay wax ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan kon lii buntab dimbalante ci lu baax la dimbalante ci lu baax nag mooy nga jël sa alal jóg ñëw fekk ay julit yoo xam ne am nañ sax luñ dëggoo waaye nga ñëw wan ne yëg naa leen yëg naa li ngeen nekk sama mbokk ngeen lii dafay jur mbokkoo dafay jur xamante dafay jur àndoo te foog naa loolu la réew mi soxla li réew mi soxla mooy nit ñi juboo nekk benn dimbalante àndoo su ko defee loolu de mooy jur barke loolu mooy jur barke kon ñu ngi leen di wax ne ñu ngi leen di wax jërëjëf jarul ñuy guddal wax ji ndax li imaam wax rek loolu doy na li magam bu jigéen waxtam tam te mooy yaama loolu doy na man dama leen di sant di leen gërëm rek ci seen taxawaay bu rafet doore ko ci euh, staff yi GRTS ak management bi yëpp mm-hmm. ci kaw ba ci suuf mm-hmm. ak ki nga xam waaye yàlla bi nga xam ne mu ngi jël alalam di ko dundale ci yoonu islaam mm-hmm. te yàlla rek a tax mm-hmm. yéen ñëpp yal na yàlla fay leen saahir ak baatin waaw loo leen man ren yal na ngeen man lu ko rew ëpp déwén te yàlla yàlla taxawale leen bi jaay Seydou wala sallallahu alayhi wa sallam. bon nag koo xam ne kii nii indi na fi alalam. joxe ko ngir yàlla am na yaakaar ne yàlla na ko nangu yàlla na ko fay si fay yi gën a rafet surtout weeri koor wi nga xam ne loo def yàlla fu la ndeel la ko fukki yoon wala juróom-ñaar fukki yoon wala moo xam fu mu koy emale ñu ngi koy gërëm di ko sant waaw ñun ñëpp ñu ngi fi dajee te ñu ngi fi kontaan di kontaan si wax ji ak li ngeen ñëw ñun ñëpp kontaan nañ ci di rafetal di rafetlu li ngeen def waaw di leen ñaanal yàlla may leen ngeen mun a def yeneen yeneen di ñaanal rajo bi itam yàlla eh, yokk ko mu dem doole am doole dem gën a réy ni ngeen ko buggee si daraja yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ah place bi palaasu diina la palaasu taalibe la taalibe suñ ko waxee mooy soldaaru yàlla ni soldaar yi mel ci réew mi noonu la taalibe yi mel ci yàlla taalibe mooy soldaaru yàlla comme ñoom ñooy soldaaru yàlla nekk ci place bi nag ngeen xeenu tiraanga ju rëy ji indil leen ko xam naa ni du ñoom rek moo tax ngeen indi ko waaye xam naa ni ñoom ñoo caa ëppale kon mel na ni ah, seen cër la loolu ñu ngi leen cee sant di leen ci gërëm ki nga xam ne itam moo ko def te yàlla tax ah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér may ko fan may ko man-man te defal ko ci barke ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp lu man ren bu déwénee yàlla na man lu ko ëpp ci barke alquran ci barke weeru koor asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin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 su ko defee rek mu ndaw ñu jublu ci tooga bi su nekkee yéen a ngi seetaan seen programme yi bakku bi ngeen àndal seen xarit maam Jeng nii rek laa ko faral di defee fi mu nekk nii ba weeru koor bu jeex incha allah bu ñu ko yàlla gis ma ma àndaa mu ndaw saa su nekk rek waaye léegi mu ndaw dañuy gërëm waa jumbo bu baax ñoom itamit gis ngeen ne def nañ ci seen doole yëpp waa am aja tamit ñoom Sadio Jaxate soo leen bàyyee xel ñoom itamit defoon nañ seen doole bu baax a baax a baax ñu di leen bëggee na ñoom itamit dañu si dee jàppale bu baax a baax a baax bi Karim tamit ñu di leen ñaanal ñoom ñëpp ñu boole waale leen ci ñaan bi seen xarit la Maam Jeng rek ni ma ko def faral ñu dem ci biir ñu seet tooga gi naka la taajoore suñ paree rek ñu yekkateeg ne ko seetaan